problème bi mooy con contexte bi toujours da koy analyser par exemple bi ñu génnee 2017 élection législative ñëpp xam ne élection législative bi moom du élection yàlla xam na ko ñëpp d'accord nañ ci parce que léegi dafa am lu amuloon bu njëkk lu am muy sunu téléphone yi lee nga xam ne dañuy filmer wan la ñëpp gis ne affaire bi teguwut ci yoon euh, ba ñu ca jógee man dama jàppoon ne ni Abdou juuf defoon 1996 euh, ca élection locale ya ba ñu defee élection locale yu jaxasoo jaxasoo jaxasoo Abdou Diouf dafa ñëw ci ay la yéwén awut yoon ma enfin awut yoon am na daal ay problème loolu moo indi ñu discuter ba teg observatoire national des élections ONEL jox ko Mamadou Niang mi tey général Mamadou moo indi aussi ONEL jógee ci ONEL ñëw ci Sénat commission électorale nationale autonome moo tax aussi nuy am ay élections ñu doon am ay élections yu amul benn problème euh, léegi loolu loolu loolu toxu na ma defe ne euh, euh, defoon naa ne Macky Sall dina ne ñëw ci télévision ne ah oui élection législative bi vraiment am na problème mais dafa ñëw ne maa ngi félicité ministre de l'intérieur félicité cadre yi gagné naa léegi nag bu dee li ci des moom dem leen ngeen waxtaan ko ak ministre de l'intérieur demuñu ñu ne non ñun demuñu continuer suñu xeex contexte bii nag dafa wuute Pape Makhtar parce que Euh, Macky Sall mu ngi ci dernier mandat amul euh, nu ñu koy waxeeti euh, kenn mënta toog lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo loolu la constitution bi wax kenn mënuta toog lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo Macky Sall ci bopp nee na mënuma ko mhm. yaa xayti dimb leen ma mënuma ko wax na ko de am déet bien. moo tax man du ngeen ma dégg ma di ci wax ñi yaakaar nag ne ci yooyu tànk la la ne wax du ko lijjanti organiser wu mooy koy lijjanti waaye yor saw ŋàbbu saw làmmeñ rek fu ne nga taxaw fa di wax bu jotee it mu def ko nga yow ko nga konti saw ŋàbbu saw làmmeñ xanaa bu boobaa nga boole ci nag ay ronkoñ <laughs> looloo fi ne leneen nekku fi yàlla du wàcc fii mukk di ko lijjanti parce que wàccul feneen lijjanti ko ñooñaa jóg taxaw lijjanti seeni yëf inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim moom loolu la loolu la wax léegi looloo fi ne donc euh, Maxtaar affaire bi hypothèse la comme on dit politique aussi c'est des hypothèses moom man jàpp naa ne ba keroog may gis ne du loolu jàpp naa ne moom intérêt mooy ñu juboo ci waxtaan ci dialogue bi. waaw ah, mais mais xam nga man lan mooy suma problème ak dialogue national. waaw lan moo tax ma gis ni dialogue national bi. Macky Sall dafay def diversion. Mhm. ñeneen ñi aussi yéen seen genre gi da ngeen fa dem rek parce que bu ne bulee pas manquer quelque chose ko bu considérez comme une étape de l'histoire mais dialogue national bi amul benn sens xam nga lu tax. Mhm. parce que amoon na avis. dialogue national boobu noonu y compris même les problèmes des ressources naturelles mënu leen fa wax rien d'inédit benn lépp lu ñu fa wax bu dee ci affaire éducation bu dee ci affaire loi ak lépp archive defoon nañ fi ay assises nationales Macky Sall liir ko wax ca lam cay wax loolu benn la beneen bi ci topp mooy li mu def ak Amadou Matar mbaw ku ko liggéey pour mu organiser les institutions def ci ay millions yu dul jeex bi ñu paree mu jël ko dugal ko ci tiroir am su ma waxee tiroir yi sama élève ne ma noonu dugal ko ci tiroir yi dafa dugal ci suuf lalu Marème Faye Sall sama <laughs> élève loolu la wax waaye leen man daal ci tiroir laay wax xam nga donc et am na benn werante bu ci am yéen ñu nekk ci biir mm-hmm. parce que un wax nañ ni ça dix millions mm-hmm. par jour mm-hmm. bu dee loolu dans un pays te ay urgence la ñuy wax c'est très grave que des citoyens responsables puissent réunir ci loo xam ne nii mënu leen faa wax lu bees parce que lépp bind nañ ko dans les livres Macky Sall état la yore hmm? question bu fa posé la question a été déjà posée indil nañ ko ay réponses bu ngeen paree indi mémorandum bi ne ko lii la Macky mu mënu cee gis lu bees parce que dans ce pays là du point de vue des problèmes et du point de vue des solutions kenn mënu fee wax lu bees mooy li may wax gars yi bu ñuy def campagne programme boo fi indi diggante Ablaye Wade ak Cheikh Anta Diop tout a été dans ce pays ak ñeneen ñi lépp wax nañ ko dégg naa démb tamit diggante je crois Birahim Seck ak Serigne Mbacké Ndiaye ñu wax mbirim per diem Mm-hmm. est-ce que yéen da di am ay perte ñoom dañ leen di jox xaalis dialogue national bi. non non alors c'est c'est bien vraiment ni nga ko abordé dina tax ma mun a leeral. Euh, xam nga boo suivre am na benn euh, werante ci média yi ñuy wax ne il faut ñuy jóge fu sore ñu di leen jox au moins paas. Mm-hmm. ba mu commencé ba tey amul kenn kuñ jox paas amul kenn kuñ jox añ. kon xam nga déjà dix millions yi ñu doon wax par jour taxu na parce que man dama bokk ci wax ñi wax ne waruñu am xa que dafa dafa jaaduwut daal dafa jaaduwut man nee naa sax opposition bi nañu organiser parce que am nañu ci suñu biir ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñu itam nag ne ñi seen loxo jotul seen ginnaaw sañu ñoo toog di wax ci réew mi parce que dañ cee am ay ay xalaat ak i gis-gis donc ñu organiser wu pour jël leen en charge moo xam transport wala restauration yu mel noonu am na ñu ne mais loolu amut solo euh, ñu ne waaw commission politique bi saa yoo demee ca réunion ba dinañ la jox cinq mille francs pour nga paas xam nga loolu wute na ak dix millions moo tax ma defe ne aussi man d'accord naa ci nit ne ma ànduma ci dialogue bi parce que quand dañ ko fee def defati ko te doxut kon ànd naa ci loolu waaye itam ma yaakaar ne man nañoo may itam ña dem tuuti pour ñoom it ñu seet est-ce que bi yoon mën naa baax wala déet maintenant nag li nga wax ànd naa ci aussi hein maanaam euh, assise nationale yaa ngi fii les euh, euh, travaux CNRI mboow a ngi fii euh, te te doxalu ko mais man nag li ma jàpp mooy président Macky Sall c'est son dernier mandat donc pour man la fay tukkee bu fekkee ne moom amalu ko aussi bu dee dañ cee man ko keneen ku toog di ko mën a di ko mën a amal ci lii ci liy enjamber les mandats lay wax parce que le temps politique ak le temps économique le dafa bokkut le temps politique c'est des c'est des des c'est des c'est des contraintes mm-hmm. de de d'élection et ak yooyu alors que le temps de construction du pays c'est une perspective loolu moo tax ma yaakaar ne euh, man loolu yëkkati woon ma wax dialogue man la xew ca fële ca commission pour général ñaar loolu moo ma yëkkati woon mais lii itam maanaam boo ci bokkut it mën nañu ne ah pourtant lii de ñor na Sénégalais yi. pour terminer ci dialogue bi. Euh, xam nga aussi dafa am Sénégal lu ñuy wax les instances de légitimation. Touba Tivaouane euh, Layeen. Euh, Niassène Medina Gounass. Louga et cetera damay fàtte ñëpp ñooñu. man mii damaa nekkoon coordonnateur front patriotique pour la défense de la république bon et puis nekkoon aussi la le président la commission communication du front de résistance nationale et je n'ai jamais été coordonnateur du front Pape Makhtar mais kilifa goo seeti diggante mille 2017 ak deux mille 2019 boo boo waxee ba ah li ngeen wax day dëgg dëgg yanu na maana waaye nag yeen itam suñ leen woowatee nag ci waxtaan da ngeen di wuyu nag ndax nit ki bu la woowee nangam nangam set loolu mooy culture Sénégal. Mm-hmm. donc pour man opposition bi aussi am na c'est une démarche aussi pédagogique parce que xeex bi jeexut. xeex bi jeexut du course de vitesse course de fond la léegi euh, euh, jaar-jaar boobu nga jaar ci su doxee alhamdulilah ñoom dinañ ne ah waaw waxoon nañ leen ko teg ko mu ngoog sotti na mm-hmm. mais su doxut mais ñoom dinañu xam ne ñun kat ñun ñii lan waroon def nañu ko. d'accord très bien alors euh, Abdoulaye dañuy marquer une petite pause avant de revenir sur le plateau. <laughs> c'est bien ça. Révélateur, griot à 16h.